الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي لندنيو دلن يان ñaanal فيب فنين fu دي دلسوات أجين ci laaj yi ak tontu yi ñuy siq talaata bu nekk muy jóge fii ci masjid saad ibn abi waqas ci parcelle seni unité 21 bisub talaata bi moom mooy ñaar fukk fan ci weeru safar ci li nga xamee ne mooy atum 1443 ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gàddaayee ba léegi muy tombeek la nga xamee ne mooy 27 ci septembre ci 2021 laaj yi mën na jaar ci 77 814 42 20 comme mën na jaarit ci 77 2751 naka noonu ñii bëgg bokk ca groupe jàkka ja it suñ ko jaarelee foofu dan ca mën a bokk lu jiitu mbokk julita laaj yi nga xam ne dafa paase ñi ngi ci doon wax benn mbir moo xamee ni nii dafay dal lu bari ci suñu doom yi jigéen ñi ca mooy sàggane di génne lenn ci seeni awra imma col gu gàtt ga nga xam ne muuru ko walla col gu yaraax goo xam ne daanika mook ñàkk solu amul différence bu bari bokk na lañ ca doon wax mooy jigéen xamal ne boo demee ba majeur lii nga xam ne mooy say ween say wet say gannaaw yu deme noonu kenn dong ko war a gis ba ñuy wax ca talaata paase sunu làmmiñ daa rëccoon ñu ne sa baay waaye déedéet loolu sa jëkkër rekk moo am droit di ko gis soo xisee ba majeur lii di sa biir sa gannaawak say weet say ween ak loolu lépp frère waratu koo gis baay waratu koo gis kenn dong la ko lislaam may muy ka nga xamee ne nii moom mooy sa jëkkër loolu mooy aju woon ca la nga xam ne laaj bi paase la gannaaw loolu mbokk jullit bu ñu xoolee suñu laaj yi tey yi kii moom dafay laaj dafa dégg ñu ne nit ki bu faatoo tant que mira suñ ko rekk du tàlli lan la lislaam wax ci loolu waa xam naa façon waxin boobu moom gisuñu ko ci waxi ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag am na lu ko xaw a jege loo xam ni nit ñi war nañ cee bàyyi xel mooy nit ki heure boo xamee ni nii dafa faatu alal jam bàyyi ña koy doon ñoo ko moom ñooñu nag dañee war a xool seeni mbir képp ko ca soxla sa alal dañ la ko war a jox ka soxlaagul alalam nag bàyyi ko fa loolee dara newu ci bo doon entreprise buñ ne nañ ko bàyyi mu continuer wéy wala tool loolu dara newu ci waaye daal nañ xam ne ku ca soxla alalam dañ ko ko war a jox ñaareel bi mooy bu ca aqu jaambur nekkee dañ ko war a génne ca yonent bi salallahu alayhi wa sallam indi nañ benn néew teg ko yonent bi daal di jóg ba jiitu mbooloo mi daa ji ko na ah ndax bàyyi na bor ñu ne ko ah kay bàyyi na la nga xam ne mooy ñaari dinaar mu ne ah ndax bàyyi na loo xam ne dana ko mën a fay gaa yi lu ko ah déedéet yow mi yàlla yónni dëgg bàyyiwul lu ko mën a fay yonent bi dellu toogaat fa mu toogoon na waaw kon jullee leen ko kii di abu qataada daal di ñëw na ko ay yow mi yàlla yónni ñaari dinaar yi man gàddu naa ko maa ngi koy fay yonent bi ne ko ah kii nga xam ne ni mooy néeg bi moom mucc na ci yaa ko yoral kam ko yoral mu ne ko waaw yonent bi alayhi salaam ñëw jiite ko abu qataada nee na ci suba ga lañ daje mu ne ma abu qataada naka ba ma ne ko ah yow mi yàlla yónni kii démb rek la nee na yonent bi noppi waxuma dara ñu dajawaat beneen yoon mu ne ma abu qataada nga def ak ñaari dinaar ya ma ne ko ah fay naa ko démb mu ne ko al ana baratta alayhi jildatu mu ne ko ah, léegi day seral nga deram ba léegi day seral nga deram ba loolu mbokk kon muy wane ne ki nga xam ne dafa dee bàyyi ay bor ngal la waa buñ ko xaaree weeru deeg semaine ak nangam nañu fexe waxtaan ak boroomi bor ya ah, fay leen seeni bor wala ñu digganteeg ñoom loo xam ni néew ba dana ca mucc lol dal moy la nga xamee ni mom lañuy wax ci wàllu miras wallahu subhanahu wa taala alam waa kii moom dafay laaj dañ don wax ci bindi passé ni imam day bu demé ba jaxaso ci julli gi man na laaj fan la tollu wala buñ ne ko subhanallah comprendre man na laaj mu ne waa ndax bu boobaa imaam day wëlbatiku jàkkaarlook mbooloo mi laaj leen wala déedéet déedéet mbokk ab laaj rek jarul jàkkaarlook mbooloo mi donc imaam bu dee ne dafa am lu mu def ñu ne ko subhanallah ca xamul lu mu doon danaan lan la mbooloo mi ne ko nangam la mu continue jarul muy wëlbatiku di jàkkaarloog mbooloo mi ndax bu dee dafa wëlbatiku bàyyi xibla ba jàkkaarloog mbooloo mi loolu day yàq julli ga wallahu subhanahu waaw kii moom day laaj moom daal lim bëggoon a xam mooy attey natt ci lislaam mbokk natt day mën nañoo wax lu baax la ndax mooy dimbilente ci lu baax am na ñu bari ci nit ñi seeni alal mënuñu koo denc waaye buñ ñee tey nañ def weer wu nekk ñu daal di natt teggil kenn mu man caa am loo xam ne dana ca mën a def loo xam ne bu doon moom dong du ko mën a économiser loolu day lu baax la mu dell nag ca waa waajay bokk ca natt ba ngal la waay bari na ay rawatina suñu mbokku jigéen yi lañuy dégg ñu ne natt bi day ku teggi am un million na am ku teggi am un million waaye nag ñu ne vingt cinq mille lañuy ñuy cotiser par mois ndax yow am nga garantie ne weer wu nekk danaa am vingt cinq mille loolu boo ko amul amoo droit dem bokk ca natt ba ab natt ba la nga ca engagé mooy dalay wóor nekkat lii ma diggante moom mën naa ko su ko defee it nga yéene ne danga ko def beneen danger bi nekk ci natt mooy ñu bari bu ñu xasee ba teggi dañuy jàpp ne ah borob Sénégal rek la su ko defee dootuñu nangoo tegeti loolee mbokk di ngay gis ni ay musiba la te it question biñ ñu jóge sànq mooy question bor ngallaawaay képp koo xam ne am nga mbokk moo xam ne teg gi woon na am natt te natt ba jeexul mu daal di faatu nañu xam ne wareef la ci ñi nga xam ne ñooy ay ndonoom ñu génne ca lam bàyyi loo xam ne dana mën a fay natt ba bu bàyyiwul it ña nga xam ne ñooy jegeñaaleem fexe ba. dajale lu ñu mën a fayee natt boobee ak bor bu mu mën a doon ci bor yi wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay wax ni ñun dey imam bi ñuy jiite fatiha lu bari da ci yàq ay baat ca dañuy dégg ne ku koy def loolu day yàq julli gi waa xam naa il faut ñuy bàyyi xel la borom xam-xam yi bind ci seeni téere ak ñun li ñuy dund ci suñu réalité soo demee tey ci imaam yu bari na doon ay joola lañuy ay wolof lañu ay pël lañu ay nangam lañu da ngay gis ni dana jafe lool li nga xam ne mooy euh, maxaarijul xuruuf ñu mën koy respecté la nga xam ne mooy ah, xarfaat yépp ñu daal di koy respecté day jafe ci ñoom mais daal bu dee ne yàq nga yëggul ci maana aaya ba mu yàq ko amul kàddu yum cay tëb xanaa daal la nga xamee ni nii moom mooy yenn kàddu yi nga xam ne nii munu munu koo wax ah, loole amul jeexital ci yàq julli ga na am suñu demoon nag bay fal imaam war nañu fexe tànn moom ka nga xam ne moo gën a rafetum njàngin waaye nag yow mi nga xam ne dangaa ñëw ca jàkka ja rek fekk fab imaam imam ba di jànge nooni loole taxul mu yàq sa julli wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom def ne lan mooy attey ki soxnaam nekk ci baax mu jël awraam di ka teg ca kaw awra soxna ba fekk soxna saa ngi ànd ak règle ah waaye nag da ko caa teg rek waaw mbokk loolu day bàyyi ko mooy la gën ci ñaari mbir mbir mu jëkk mi mooy suñu boroom lu ci bari lim ñuy tere danaan bu leen ko jege moo tax euh, mu naan buñ jege njaaloo te ku ne xam ne ne ni góor gu mat góor yenn yi bu demee ba yegg fa pour mu def la yàlla xaraamal ca mooy ànd ak soxnaam ci biir règle loolee ku ne xam ne dana ko yomb lool loolu muy benn ñaareel bi borom xam-xam yi dañoo am ixtilaaf waa nit ki nga xam ne dafa am règle soxna si am règle lan moo dagan ci jëkkëram ci moom le ëpp ci ñoom li ñu wax mooy la yaay netti li ni rasul sallallahu alayhi wasallam day kenn ci nit bu ma san ànd ak règle ca mu bëgg a jonjog moom da koy sant na woddu loolee kon ñu ne mooy diggante jumba xam ba ak ak ay oomam loole góor gi da ko war a moytu leneen li des ci yaram bi yépp nag moom lum ca laal dara nekku ci loolee am na boroom xam-xam yoo xam ne dañ ko tere moo gën a siiw ci mazahib yi na doon Malik Shafi Ahmad bi deme noonu am na ca ñoo xam ne ñii dañ ne la yàlla di wax mahiit mooy fa muy génne loolu moom bu ko bu bu ko laal léegi nag bu ñu xoolee wax yooyu yépp mbokk jullit dañuy gis ne la gën a mucc ay ayib moo dina ni ña gën a tolérant ci ñoom mooy ñu jàpp ne fañ la tere fa régal bi di génni kon du poot yaag la jege noonu yépp loolu laal ko dara néewu ci loolu mooy ña gën a tolérant su ko defee daal la nga xamee ne nag moo rot ci laaj bi mooy ku góor ki lam yor mu koy teg ca fa régal ba di génne directement loolee moom moytu ko mooy la nga xam ne moo gën a mucc ayib ci sa diine wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj ndax ki nga xam ne dafa tuub bees ci lislaam ndax kooku dafa war a sangu walla du sangu waaw masala ki nga xam ne dafa tuub dey loole bokk na ci boroom xam-xam yi soo delloo ku nekk say tegtal la nga ca jàpp am na ñu ci jàpp ne fokk dafa war a sangu balaa mën a dem di julli am na ci nag ñoo xam ne dañ ni loolu amul tegtal ndax ki nga xam ne nii dafa ñi daan tuub si dugg ci lislaam kenn xamul nu mu toll te gisuñu yonent bi aleyhi salaam daan def ku tuub mu ne la sangul mu am ñu ca teqalee ab teqalee ca moo di ne bu dee waa ji tuub si dey moom yëg na ne ne mas naa ànd ak ba mas naa ànd ak ba mooy gént na ba ànd ak janaba wala ñàkkoon na sëy ab euh, njaaloo ba ànd ak janaba ku mel noonu kon ñu ne maadaama tuub na na dem sangu yéene ca sangu jana ba waaye daal almuhim comme ni ma la ko waxee ixtilaaf da ca am su dee yomb na la gën mooy ki tuub balaa julli na dem sangu ji euh, bu dee ne nag nekkul lu yombalit nañ xam ne du borom xam-xam yépp dëppoo su ko deful kon kenn du ko ca yedd wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj mu ne man day dama am gétt ay xar ak bëy léegi bëy yi nag ñoom ñoo ëpp xar yi léegi man su may génn zakat dama koy génne ci xar yi wala ci bëy yi loolu day bokk na la gën a digg doomu lu ci borom xam-xam yi wax mooy dañuy xool su dee ne xar ya ñoo ëpp bëy ya zakat bi ca xar ya lañ koy génne su dee bëy ya ñoo ëpp xar ya zakat ba ca bëy ya lañ koy génne mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj nan lañuy xàmmee nattu bu suñu boroom di nattu ab jaamam ak mbugal goo xam ne yàlla da koy mbugal jaamam waala li xaal mbokk julita suñu boroom moom fokk day nattu ay jaamam jaam yooyu sax bu ñuy xool nañ gën a baaxe la seen nattu di gën a tare moo tax yonent bi alei salaam ne ñi gën a tar ay nattu mooy yonent ya ak ñi leen jege amma bu dee mbugal nañ koy xame mooy koo xamee ne nii dafa saxoon ci bàkkaar sàggane diini rawatina la ka dal jóge ca la nga xame ni ni mooy bàkkaaram boobee ki nga xam ne dafa demoon di njaaloo di njaaloo ba jële fa sida loolu mën nañ wax ni lii am mbugal la ki nga xam ne da doon jël di naan sàngara ba am fa cancer gorge ko mel noonu dañuy jàpp ni lii mbugal la ka nga xam ne dafa doon agressé farñu ñu dagg loxoom wala toj boppam dañuy jàpp ni lii mbugal la waaye dal ala kulli xaal mbokk julit julit moom yow li la dal da ngay refen njoorti ci yàlla jàpp ne lii daal lum mën a doon ab nattu la yàlla ma ko teg ngiree tuub samay bàkkaar dellu ci moom loolu tax yonent bi alayhi salaam daan wax ne ajaban li amril mumin inna amrahu kullahu lahu xayir ak yéeme mbiri julit julit moom léppam yiw la ndax lu ko mën a dal ci nattu day muñ muñ gu rafet mu wëlbati ko nekk yiw ñeel ko lu ko mën a dal ci xéewal mu sant sant gu rafet mu wëlbati ko nekk yiw ñeel ko loolu tax ba yow julit lépp lu la mën a dal bul xalaat mukk ni li yàlla daf may mbugal xalaatal ne déedéet yàlla daf may nattu ca teg na lu gën a màgg lii ñoo xam ne ñoo ma gën foofu su ko defee nga muñ ko muñ gu rafet tuub dellu ci sa boroom wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj man dama yor toolub kaani léegi nag ñun tool bi duñ ko wittandoo dañuy witt rek di jël di jaay zakat bi naka lañ koy defee alakuli xaal mbokk jullit la ëpp ci borom xam-xam yi day rawatina mazhab Maalik ñoom dañ naan lépp loo xam ne daa jëm ci ay légumes loole kenn du ci gën a zakat kaani yaag naaja yaag yu deme noonu kenn du ci génne zakkaat yow daal jullit bi boo bàyyee sa tool génne ceeb sarax bu dee nii masala boobu lañ jël kon amul leneen duñ cey teg amma bu dee dañoo jàpp ci ñi nga xam ne dañ ne zakkaat dañ koy génne ci bépp façon mbay su boobaa yow ñaar moo mën a nekk mooy nga xool tool bi ba xam tool bii kat moom yegg na ci loo xamee ne nii dañ koy mën a tuddee ay nisaab ca loolu la ca jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam dañ ko daan wax juróomi waqs waqs bu nekk dafay def la nga xamee ne nii mooy juróom benn fukk ci ay saa soo ko xoolee mu nekk à peu près 600 kilo ci nattuwaay masalan su ko defee yow toolukaani boobee buñ ko xoolee daal di koy à peu près ne kii kat war naa génne masalan fukki saako war naa génne fukki saako kon nga daal di jàpp ni benn saako bi mooy zakkaat su dee ne asamaan moo koy tawal bu dee yaa koy arrosé ñu ne kon genn wàllu saako ngay génne zakkaat su ko defee nga génne genn wàllu saako mu nekk zakkaat la ngay witti par jour it bu dee ne lu gën naa néew loolu na nga koy defee rek mooy foo witti la nga witt xaaj ko ñaar fukki xaaj bu dee yaa arrosé tool ba benn xaaj ba nga sarxe ko bu dee ne asamaan moo koy tawal nga xaaj ko fukki xaaj benn xaaj ba nga saraxe ko loolu daal lañuy wax ci loolu donte ne la ma la jëkk a wax mooy la ëpp ci borom xam-xam dañ ne tool yu mel noonu zakkaat waru ca jullit bi daal xoolal la ci sa xol toll nga sarax ko masaakiine yi wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafa laaj dafa dégg ne julli ba pare jàngaayatul kursi baax na waaye soo ko jàngee dañ koy ëf sa loxo ndeyjoor daal di koy raay sa bopp ñetti yoon waaw cosaanu wax ji day mooy ñëw na ci ay xadiis rasul sallallahu alayhi wa di ñaaxaate ci ko julli ba pare na jàng ayatul kursi ñëw na ci ay riwaaya mu ne ku mel noonu heure bu faatoo day tabbi aljanna amma nag dang koy ëf sa loxo di ko dóoru sa bopp wala di ko raayu sa bopp loolee moom ñëwul ca njàngalam yeneen taba te it julit wurte def loolu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj nu ñuy mën a déggee nit ñi naan yonent bi salallahu alayhi wa sallam aïcha la gënoon a bëgg ci ay soxnaam ak li ñuy teree góor di jeng mbokkoo gën a bëgg sa soxna tel firiwul ne dangay jeng rasul sallallahu alayhi wa sallam Aïcha la gënoon a bëgg na am ndax papaam mooy xaritam bi gën a màgg di Abu Bakar Aïcha juddoo ci kanamam yaroo ci kanamam gannaaw ba bi muy jël ay Aïcha mu nekk xale bu ndaw mboolem soxna yenent bi képp ci ñoom mas ngaa fanaan ak góor ba mu des Aïcha radiyallahu anha loolu it yàlla tànn ko yàlla musul yónni jibril alayhi salatu wasalaam lu dul fekk yonente bi mi ngi nekk aïcha looloo tax yonente bi alayhi salaam gënul koo bëgg waaye ndax daa taxoon yonente bi jeng jëm ci moom déedéet salallahu alayhi wa sallam heure bu masaan tukki day dajale soxna yépp ne ku nekk ni indi bant ki bantam génn kooku lay àndal ba mu feebaree da daan wër ci néegi demoon na ba feebar bi gañe ko mu naan waaw suba fan laa war a ay mujj soxna yi ñoo diisoo ne nañ ko bàyyi mu fanaan mu toog nekk Aïcha ba mu faatoo nekk Aïcha waaye kon sa njaboot di say doom am ko ci gën a bëgg firiwul da war a jàng say soxna am koo ci gën a bëgg firiwul da war a jàng mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj dafa am ñoo xam ne dañuy nekk di bàcc ay bët di am luñ cay génne am na nag yu ñuy wax yow doo ko xam ndax jullit war naa dem ci ñooñu waaw bàcc bët dey loole expérience la am na ñu ko yàlla may ñoo xam ne nii am na ñu ñuy jëfandikoo say bët ba mën a génn fattu yi ca nekk lañu cay waxit islaam moom bañul doomu aadama bi di jëfandikoo ay kaddu su dee kàddu yi shirk nekku ca ndax xam nañ am na lu gën a garaw sax bàcc bët mooy da ngay gis benn waay boo xam ne jaan da koy mat bàyyi ca bëñ ba euh, dangay ngay gis buñ ko luggul dafay dee mën na dee bëñ boobee même boo dajee ko mën a lugg jaan ca munta génn bëñ ba bëñ ba mën na caa nekk ba yàq sax tànk ba waaye da ngay gis koo xam ne ni day ñëw di ko mocc di ko mocc ba génne bëñ bi loolu nag lañu ñu cay seet rek mooy ndax kaddu ya muy wax kàddu bokkaale la wala kaddu ya muy wax ay turi yàlla la su dee ne daal yow xamoo la muy wax ca it am nga yow metitu bët sa bët bii am na ay patt yu ci nekk bi nga ñëwee xamoo la muy wax bàccal na la génn la say patt su boobaa loole moom engagé wu la amaa nag boo demee ba am yaqiin ci xam ne kii kat moom day njabar am njabar moom kenn warut dem ci moom wallahu waaw kii moom dafay laaj moom dafa nekk ci benn kees léeg-léeg nag dangay gis ku ñëw di fay weccit wi mu ne may naa la ko weccit boobee ndax dana dagan moom mu koy jël waaw bu dee ne day la gën ci moom mooy weccit yooyu na ko dajale su dee ne patron ñëw na mu defal ko keesam ne ko ah li de weccit la bu desoon a waaja may ma ko loolee bu ko ca joxee ndigal mu jël ko rasul sallallahu alayhi wa sallam yónni ne benn waaye muy dajale ay zakkaat bi mu ñëwee mu indi zakkaat yi am ak jurgum teg ne rasul sallallahu alayhi na ko waaw lee lu mu doon mu ne ko ah lee day gaayaa ma ko fa may rek yonent bi alayhi salaam dafa dem ca ko min barba daa ne lan moo dal ay nit ñu leen di liggéeyloo suñ ñëwee naan lii ngeen am lii dañ ma ko may lu tee woon ñu toog seen kër bàyyi bañ fekk leen fa may leen fa képp ku ñuy liggéeyloo lépp loo xam ne nii néew na wala bari na na ko indi luñ ko jox ndigal mu jël luñ ko ca mu bàyyi su ko defee kon kees dafa sensible da nga gis ñu bari bu ñu yoree caissier dañ ko jox sax ay prime de caisse ndax xam nañ ne léeg-léeg delloo lu ëpp léeg-léeg ñu bàyyee loolu ëpp su ko defee yooyu yépp daal la gënoon mooy ka nga xam ne mooy sa kilifa ca mbir ma lépp lu ca xew nga wax ko ko soo ci amee perte wax ko soo ci amee loo gañe nga wax ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj ñun de dañuy liggéey ci égout yi nga xam ne dafay génne ndoxu taw yi léegi nag buñ ciy liggéey ndox mi day tis suñuy yére ba day toll foo xamee ne nii man duma mën a nekk di julli ndax euh, loolu nga xam ne mooy yére yooyu di takk affaire bi nag euh, léeg-léeg daf may sonal ndax dañuy xaw a guddee wàcc muy laaj ci loolu ala xaal mbokk égu yi nga xam ne ay ndoxu taw lay génnee su boobaa day euh, loolee dana doon loo xamee ni nii duñ ko mën a jàppee sobe lay doon même bu dee ne léeg-léeg dana ànd ak ndox yoo xamee ne nii ay ndoxu douche la bu ñu xoolee la nekkoon cosaan bu jëkk mooy ndox yi nga xam ne day wal ci mbedd mi boroom xam yi dañu ci wax ne ndox yooyu nga xam ne day taw ba pare di wal ci mbedd mi ca it ñàkkul ci ne mën naa am ay ndoxu salte yu ca nekk loolu teewul bu teqee ci yaramu jullit walla yëre jullit mën na ko sanguwaa mën na ko sangoo mooy daal tànk yaa ngi yëg ni ndoxu taw mi day moo gën a not la mu àndal su boobaa dañuy jàpp ne na am maa nag boo yégee foo xam ne ni wóor na ne lii moom égul rek boo xam ne buy génn nga xam ne la ca génne moom mooy euh, ca douche la génne directement su boobaa moom yére yu mel noonu doo ko jullee wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi moom dafay laaj dafa am koo xamee ne nii sama sœur la dafa ma yoral vingt mille francs moom nag xam naa ne moom mënuma koo fay ndax léegi man su may génne zakat zakat boobee mën naa ko wax lii kat jël naa ko ci zakat bi ma doon joxe bor bi ko na la waaw loolu day mbokk julit dangay gis ni bu ñu delloo ci li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne déedéet zakat dañ ko génne war koo jox fuqaraaw yi ak masaakiina yi waroo coo dabu yow la nga xam ne mooy sa intérêt ca bor boo xamee ni nii yaakaaroo ko jot loolu yi ci ñoom di wax am na ca nag ñoo xam ne dañu ne maadaama zakat yàlla da ca bind ab cir boo xam ne ñi am bor ñoo ko moom su dee ne waa ji xam nga ne moom kat amul lum la faye su amee lum la faye moom doo ko def waaye bu dee xam nga ne amul lum la faye ku mel noonu man nga ko euh, wax ni zakat tel day jën naa ko yow laa ko waroon a jox féetal naa ko bor ba nga ma yoral ca bu boobaa da ngay gis ni loolu dana doon lu la dagan su ko defee ngiree daal mucc ci wax yi la ëpp ci borom xam-xam yi ñu wax soo santee caam daal yoral na la vingt mille yaa ngi génne zakkaat jëlal vingt mille am teg ci loxoom ba moom ko xam ne alalam la nga ne ko hey fay ma nag sama vingt mille yama la yoraloon yag ma yoraloon loolu daal moom bu amee da ngay gis ne kenn mënatulaa yedd waaye am ma jël ko rek féetewoo ko ca zakat ba tegewul ci loxo faqir ba loolee la ëpp ci ñoom dañ ne baaxul mooy toko mooy la gën wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj ndax lii nga xam ne mooy malik ak abdul malik ban moo ci gën masalan soo amoon sa doom bëgg ko tudde malik wala abdul malik ala kulli xaal mbokk jël malik lu baax la yéen ñépp xam ngeen ne yàgg ngeen dégg ñuy wax mazhab Malik muy Malik ibnu Anas nga xam ni lu bari ci Afrique de l'Ouest ñi nga tënku ci am njàngaleem suñu réew yi gis nañ fi kenn ci sunu mag ñi mi nga tuddoon El Hadj Malik kon loolu moom lu baax la waaye nag nga tudde Abdul Malik mooy jaamu buur bi loole dangay gis ne moom mooy la gën ndax tur bi nga xam ne dafa am abdu loolu mooy la gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax bokk na tur yi gën a neex suñu boroom mooy lii di abdullah ak abdurahman naka noonu it abdul malik abdul aziz abdul lu mën a doon mooy jaamu ci kenn ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala loolu moom moo gën ci tur boo xam ni dañ koo wax noonu rek mi ngi noonu mbokk julit ala kulli xaal comme ni ngeen bokk seetloo yegsi nañ ci 30 minutes yi nga xame ne nii moom lañu charto woon ak yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala niñ ko doon ñaane na ko jekk mooy lépp loo xamee ne nii jub na ci waxi ji yal na yàlla wërsëgal ñu jëfee ko ca nangul ñu ko lépp loo xam ne ay njuumte la yu ca dugg yal na yàlla xamal ñu ko wërsëgal ñu euh, la nga xam ne mooy dëgg wërsëgul it ñu bàyyi njuumte ca toppi dëgg والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته